asalaamaaleykum eh, yonent yàlla yusufa alayhi salaam bi ñu yàlla di nettali xissaam ci alquran danoo seetlu na ci njëlbeen gi yonent yàlla yusuf géntam gi dafa géntoon ahada achara kawkaban fukki biddiw ak benn ak jant bi ak weer wi la géntam ñi di ko sujootal mu mu nettali ko baayam baayam na ko bu ma ko déggati bu ko wax mukk nit ñi di la dégg ndax kañaan léeg-léeg dina yéexal doxinu ndaw te fukki biddiw ak benn yi mooy fukki doom yu baayam yi ak benn jant beeg weer yi mooy ñaari waajuram waaye li ci yéeme mooy buñ seetloo ci xissa bi duñ dégg mukk alxuraan buy wax tudd yaay yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam déedéet li ko waral mooy yonent yàlla Yuusuf waajuram wu jigéen dafa faatu ci bi mi euh, mucc ci rakk yusuf ji ñuy wax binyamin koko moy rakk yusuf ji bi bi bi ko woy di di di di di di jur bobal ay woy juróom ji jigéen faatu motax bir biir xese bi do ci deg mukk ak li natt yi di bare ak lu mi tar ak lu mi yag do ci deg mukk alquran tuddu alquran tuddu yoy woy ji ndax Eh, alxuraan waxe na mu lu sew la kaar da dégg boo buy wax ca biir mu ne wa rafaa abawayhi alal arshi ndax yunteel yaqub bim jooyee ci nattu yuusuf yi ba gët ya muuru ba gisatul eh, xam nga comme ni yàlla bindee ñaari waajur jigéen mooy ëpp ak cofeel ci doom moo ci ëpp ak coona di ci ëpp ak toppatoo bu fekkoon ne waajur wu jigéen yontu yàlla Yuusuf ma nga fa nu koron lu ba daj ci nattu yi méttit ko ñaan ci yàlla jooy ci rek fukkam waajur jigéen dina ko daj kon bu fekkee alxuraan tudd ko ah, kon tubaarkaal noonu lay demee léegi nag bu ñu déggee mën a fa aba way abawayhi ñaari waajuram boo fekk du waajuram direct ndax wax naa la bi rakkam di gane jamono ci la waajur mu jigéen faatu kon du waajuram direct waaye benn soxna si yonent yàlla Yaaqub nga xam ne moo ko yar te xam nga nit sa doom direct ngay gën a bëgg ci sa doom wujj donc ne doon na ko toppatoo abawayhi wuute na ak waalidayhi alxuraan waxut wa rafaa waalidayhi waaye wa rafaa abawayhi la wax loolu dañ ciy déggee ne alxuraan rek kay alxuraan ndax bu fekkee daf ne abawayhi day tekki al ummu wal abu mooy yaay ak baay waaye nag du yaay direct li ci gën a bari bu ko alxuraan di wax moo tax muy notal al abbu wax abaway ni bu ne woon waaliday ni xam nga wàllum jur jigéen lañ ko xamee kon al ummu wal abu mooy yaay ak baay la waaliday ni di tekki waaye yàlla dafa notal foofu foofu daf fi faral di notal euh, way jur wu jigéen ci waajuru góor moo tax mu indi waalit mooy aji jur te jur jigéen lañ ko xamee kon bu ne waaliday ni góor bàyyi ak yaay la ci jublu waaye nag yaay la ëppal doole foofu bu ne abooy ni bàyyi ak yaay la ci jublu waaye bàyyi la ëppal foofu moo tax ñaare su fekkee euh, xis yi alxuraan di nettali bu dee bàyyi ji moo cëpp taxawaay wala yaay ji nekku fa donte ne yaayu njaabal wala yaayu jiital wala yooyu dana ci am alxuraan abaway ni lay lay jëfandikoo ngir wana ne baay ji mu ëpp taxawaay foofu yaay ji su indee wala deen rek ñaare eh, yaay ji muy ëpp taxawaay baay ji moo tax nga dégg fële wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni wa bil walidayni ihsaan mooy ñoom ñaar ñëpp am nañ àq waaye wooy jiw jigéen ñi nag ay àqam kenn fekku ko ci moo tax alxuraan andi walidayni muy tekki ne eh, wooy jiw jigéen mooy ëpp doole foofu